comme ni ko yeneen sénégalais yéegee soudeur yi itam géeg nañ bu baax lii di yokkute facture courant yi ñenn si ñoom sax seen facture yi dañoo daal di triplé si weer yi mujj mu nekk ab situation bi nga xamante ne dafa daal di jox ay gàllankoor si seenub liggéey. ci sama lépp courant la wax dëgg yàlla moom euh, ni mu laalee Sénégal yëpp noonu lañu ñu laalee ñun ñii. sama facteurs yi mujj yi presque mu ngi may dikkee presque ay trente et quelques mille ans. waaw te jamono yu wees ci ginnaaw wax dëgg yàlla maa ngi doon fay ay vingt mille et quelque. wàññi lu bari yaa ngi dégg dafa yàq lu bari léeg-léeg sax dañuy manqué xaalis bi du mën a jënd matériel ndax xaalis bi ñuy fayee courant. ngir économiser dépenses yi Lassana yenn saay dafay daal di utiliser ancienne méthode bi donte ne sax nekkul lu yomb. daan benn benn genre écrou laay defar nii ko instant bii nii boo xoolee buñ buñ doon bënnee nii courant su boobaa seen le bu ñëwee bon facture bi day seet instant yii nii liggéey amul. bon mu ngi koy gérer rek affaire bi moom xaw na métti de ndax instant moom xam nga ak marto bii nii ak lii xam boo dooree sa loxo yi mun na aw. bile situation tax ñenn si les ouvriers daal di xalaat sax yokk seenub njëg waaye nag ñeneen ñi jàpp ni que mënuñ def loolu ndax dañuy perte seeni clients. waaw mais dañuy yokk parce que munoo am na yoo xam soo ko yokkee gars yi dinañ ko soxla mais duñ ko mën a jënd yaa ngi dañ ciy def loo xam ne rek. client bi dana ko mën a jënd quoi. waaw seulement boo ko yokkee doo ci génn sa parce que dañoo dañoo dañoo toll ci jamono joo xam ni fu mu nekk nii loo yokk tuuti rek nga perte sa clientèle. bi la yëkkute nag dafa daal di fekk si beneen jafe-jafe di ñàkku client yi loolee sax mu ñu jàpp li ko waxal mooy dund gu cher gi ñu nemmee ko si biir réew mi jamono ji